premier versement wax naa ni ñun fi ñuy màggalee daa sori lu ñu fa yóbbul amu fa ñun Sikori lañ jëm faaw mu leer premier versement màggal Touba waaye Ila Sikori cinq cent mille premier yéen ñi ñëwagul ñëw leen yéen ñi envoyé yéen ñi nekk Europe yéen ñi euh, ñëw leen jàpp leen ci màggal gi ku joxe yokk ku joxewul nag xaw ma seen mbir daal waxi Serigne Bamba la foofu laa yem ayatel li <laughs> premier versement wax naa ne ñun fi ñu màggalee daa sori lu ñu fa yóbbul amu fa ñun Sikori lañ jëm faw mu leer premier versement Magal Touba waaye Ila Chikoori cinq cent mille premier versement yéen ñi ñëwagul ñëw leen yéen ñi envoyé yéen ñi nekk Europe yéen ñi ñëw leen jàpp leen ci màggal bi ku joxe yokk ku joxewul nag xaw ma seen biir daal waxi Serigne Bamba la foofu laa yem ayca li aja <laughs> premier jour Madial premier jour Madial ma fi nekk sax di compter compter wu muy deux laa war a yóbbu deux ak wala quatre nag daaw xam nga lu ñu yóbboon un cinq cent ak ñaari nag ren deux bu ñu ko yóbbuwul ak quatre nag xoolal du ma yi si kóor yi luñ fa yóbbuwul amu fa àll ba la àll ba ñi ma mayoon daaw nag nañu waajaat ren dañuy maye nag ñi mayaloon daaw nag nañu waaj seen nag kër bu neen naa fa dugg ku jàppal ci màggal gi tu affaire ak man tu m'as déclaré la guerre màggal Tuubaa moo ñor si kóor yi lañuy màggale foo maam borom daal <laughs> premier versement wax naa ne ñun fi ñu màggalee daa sori lu ñu fa yóbbul amu fa ñun Sikori lañ jëm faaw mu leer premier versement màggal Touba waaye Ila Sikori cinq cent mille premier versement yéen ñi ñëwagul ñëw yéen ñi envoyé yéen ñi nekk Europe yéen ñi ñëw leen jàpp leen ci màggal gi ku joxe yokk ku joxewut nag xaw ma seen biir daal waxi Serigne Bamba la foofu laa yem ayatel li <laughs> premier versement wax naa ne ñun fi ñu màggalee daa sori lu ñu fa yóbbul amu fa ñun Sikori lañ jëm faaw mu leer premier versement màggal Touba waaye Ila Chikori cinq cent mille premier versement yéen ñi ñëwagul ñëw leen yéen ñi envoyé yéen ñi nekk Europe yéen ñi ñëw leen jàpp leen ci màggal bi ku joxe yokk ku joxewut nag xaw ma seen biir daal waxi Serigne Bamba la foofu laa yem ayca li <laughs> aja premier jour Madial premier jour Madial ma fi nekk sax di compter compter wu muy deux laa war a yóbbu deux ak wala quatre nag daaw xam nga lu ñu yóbbuwoon un cinq cent ak ñaari nag ren deux bu ñu ko yóbbuwul ak quatre nag xoolal du ma màggali si kóor yi luñ fa yóbbuwul amu fa àll ba la àll ba ñi ma mayoon daaw nag ñu waajaat ren dañuy maye nag ñi mayoon daaw nag nañu waaj seen nag kër bu neen naa fa dugg ku jàppal ci màggal gi tu affaire ak man tu m'as déclaré la guerre màggal Tuubaa moo ñor si kóor yi la ñuy màggale foo maam borom ay <laughs>